you know. ba tey ci seen scandale di jour comme ni ma leen ko waxee rek Sonko day génn du génn gaa yaa ngi koy lamlaami nañ dem déglu Mollah Morgan révélation yi mu def ci génnum Sonko bi. waaye nay leer ma wax ko devant tous les Sénégalais Sonko demandewul ñaanul saraxul li wax nii semaine bii. di gis Sonko wala semaine bii di ñëw di ngeen gis Sonko waaye nay leer ma wax ko devant tous les sénégalais Ousmane Sonko demandewul ñaanul saraxul li ma leen. kon yaakaar naa ñoo ko déggandoo nee na Sonko ñaanul Sonko saraxul Sonko faalewul bay ñaan liberté donc dina génn semaine bi wala semaine bee di ñëw Sonko namm nañ la Sonko. Sonko Sonko namm nañ la Sonko day génn semaine bi al semaine bii di ñëw Mollah Morgan moo ko wax du Zeyna de Mollah Morgan moo ko wax nee na Sonko day génn donc ñuy woy Sonko namm nañ la waajal leen seen bopp macha allah.